alhamdulilahi rabbil alamin mbokki jullit yi noo ngi màggal allah taala wa tabarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal ñu sunuy njuumte waaye jéggal ñu sunuy rëcc rëcc mbokki jullit yi noo ngi ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaanal mboolemi sahabaam ak taabiina lahu bi ihsanin ila yawmi ddin sunu xutba bi passé nu ngi nekkoon ci nan la ñuy yaree suñu njaboot ci yarinu islam waaye tey ñu ñëw ci masuliyatu tarbiyatil banaat fil islaam muy responsabilité bi nekk ci yar doom yu jigéen ci lislaam xam ngeen ni doom yu jigéen ñoom ñoo ëpp jafe-jafe ci wàllu yar moo tax ñuy dénk sunu bopp ragal yàlla di ko dénk bépp jullit di wax ni doom ju jigéen dafa am xàmmekaay ak jaguwaay bu bari ndax moom doom ju jigéen mën nga ni mooy ramzul xayaa jubluwaay la ci wàllu dund su jagee dund jub su jagut dund yàqu jigéen mooy tabax société waaye mooy jur góor mooy jur jigéen moom mooy defar njaboot ëllëg moo tax yàlla wàcce ko wàccewaay boo xam ni dafa jaadu ñu bëgg ko toppatoo ko defar ko ndax su defaroo lu bari dana defaru waaye su yàqoo lu bari dana yàqu mën nga ni jigéen mooy rompoy dund su la yàlla mayee doom bu jigéen kon da nga ko war tabax tabax bu baax ndax yàgg-yàgg day jóge ci say loxo jëm ci yeneen loxo yàgg-yàgg day sos famille am ñu soqi ci moom am ñu bàyyi ci moom am ñu yaakaar ci moom ak néew dooleem ak néew pexeem ak li yàlla def ci moom moo tax ñu war koo sonne mbokk yi doom bu jigéen soo ko yaree yar bu baax ba mu màgg dana doon jabar te kay nekk borom këram dana sant bu baax waaye dana la sant yow wayjur mi tabax doom ju jigéen ba mu baax ndax fii kat lu baax ci jigéen la jaaree waaye lu bonit ci jigéen la jaare kon jigéen ëllëg mooy nekk yaay doom ji jigéen ëllëg mooy nekk yarkat mooy nekk jàngalekat ndax mooy magasin bi nga xam ne ci la yàlla dëxën bépp mbir kon moom moomu su baaxee li ëpp ci àdduna dana baax waaye su yàqoo lu ëpp ci àdduna yàqu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla jox na ko ci ay doom yu jigéen lim bu mu ko joxul ci doom yu góor yàlla jox na ko ñeenti doom yu jigéen mu yar leen tabax leen defar leen ba ñu baax ba àdduna ñépp seede mbaaxu doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi newul woon yàcc rek seetaan jàpp ne daa bëgg ay doomam rek lu ñu bëgg mu bëgg ko déedéet waaye daf leen doon corriger di leen defar ndax yàlla may na ko mbooleem doomam bu jigéen sëy na doom bu jigéen bu mu am sëy na kon bépp góor bu takk doomam bu jigéen yiw woo ko fekk war nga xam ne yonent bi moo ko tabax mook seen yaay xadijatu radiallahu anha ñeenti doom yu jigéen yépp ki leen jur mooy sunu yaay Khadija am na doom ju ñuy wax Fatima am na Ummu Kaltuum am na Ruqayya am na Zeynab Fatima radiyallahu anha judd na avant ñuy yónni yonent bi juróomi at Fatima ku ko denc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu doomam bu jigéen bi ñuy wax Zeynab عاص ابن ربيع موم مكو دنجون نياري دومم يو جيجين موي اك ام كلثوم كيلن دنج موي عثمان ابن عفان لول موتاخ ني عثمان ذو النورين بروم نياري ليري داخ نياري ليري يونتي بلا دنج كي مجيتي نيوم بي مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا خول عثمان moom yonent bi ay bëtam taa mu ne usmaan su ma juróon yeneen doom du deñ den di la may ku dee ma may la keneen loolu mooy gërëm goro loolu mooy taxawaayu goro bu baax ba sa goro ne la su ma amaatoon jox la kon ñi denc doomi jàmbur ñépp noonu la ñu war a mel mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaax ñu ñu rafetal jëme ci doom yu jigéen yi ñu am doom bu jigéen boo koy yar da ngay rafetal yar ba dangay ngay jiital yërmande jiital cofeel waaye jiital tabax sooy defar bul bañ métit bul bañ jafe-jafe waaye defaral gis nga mason bi buy tabax kër dana àgg ci koñ boo xam ni il faut mu damm birig su fekkoon dafa ni damaa bëgg a tabax te du damm birig benn bâtiment du baax kon il faut mu am bu ñu damm am bu ñu fell am bu ñu toj loolu moom mooy yar soo gisee nii laaj na ñu jubbanti fii ñu jubbanti mbëgg goo bëgg doom bu jigéen nag jiitalal mbaaxam ba pare ndax ginnaaw bëgg giñ ko bëgg ñaara ci topp dinañ ko bëggee ni nga ko bëggee mbaa ñu xas ko xasaale la kon soo fexee ba mu baax ku ko bëgg dana la bëgg waaye soo sàgganee ba mu yàqu ku ko bañ dana la bañ te ku ko saaga ci yow lay njëkkee beneen bi laa shakka yàlla lépp lu mu def am na xikma bu tax mu def ko boo xoolee diggante doom ju góor ak doom ju jigéen ci yaay ak ci pàppa li ëpp doom bu jigéen la pàppa di gën a bëgg góor doom bu jigéen lay gën a bëgg lan moo tax mooy bi xukmi fitratiha maanaam mbind bi ko yàlla bind néew doole bi néew pexe bi néew kattan bi loolu ci la papay xool waaye papa pour nga tabax doom xoolal yaay nan la mel yow ba ngay takki soxna kan nga xooloon da nga xooloon borom diine danga xooloon ku set danga nga xooloon ku ragal yàlla da xooloon ku ñu tabax xamal ni doom ji nga am ëllëg dana am ku ñëw jël si ko kii ñëw di jël ko les mêmes critères lay xool comme yi nga xooloon ci yaayam kon fexeel doom ji gën yaayam waaye yaay yow miit am doom ju jigéen am nga soxla de ndax olof day wax benn kaddu bu mat a bàyyi xel doom ja ndey ja ku ko bañ sa ndey jugut kon bépp doom bu jigéen ju baax tagg wa ñaan wa ca yaay lay dellu moo tax ñi fi baax ñépp kan lañuy ñuy seen yaay ngay dégg waaye néew na ngay dégg seen papa xool leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ngay dégg amina doo ko dégg abdallah mukk mukk mukk mukk lu bëri amina ngay dégg lan moo tax parce que yaay mooy école boo xam ni bu tabaxee tabax société al ummu madrasa ida aadadtaha aadadta shaaban tayiba al araq yaay soo ko tabaxee defar ko mu jural la société bu baax a baax a baax moo tax yaay la ñuy taggee doom mais kenn du taggee doom baay kon yow yaay doom bu jigéen bi nga am ginnaaw toppatoo setam ginnaaw toppatoo taaram na nga xam ni li ñuy gën yar ci doom moom mooy ruux dafa am ñaar yu daje ci nit waajur bu nekk war na koo xam ñaar yu daje ci nit mooy jëmm ak ruux jëmm ji ñu bëri mën nañ koo defar ñun ñëpp amuñu problème mu defar jëmm defar jëmm ji mooy di ko solal lu rafet muy sangu nga di ko taaral gisoo ku dam doom bu jigéen lu mu gis lu rafet ci doom bu jigéen dana ko jën di ko solal moo xam xale bi dañ koy boot wala bootuñ ko day nàmp wala nàmpuwul day jàng dox walla jàngul dox mais yaay day sonn ci doom ci lan moo tax binaayatu mazahiriha fexe di tabax biteem ba ku ko gis naw xale bi loolu moom yomb na waaye problème bi yépp fi yàlla bëgguñu jublu ñun dañu koy fàtte fu ñuy war a jublu mooy tabax ruux bi ruux la ñuy tabax ndax ruux mooy nit nit bu ruuxam baaxee diggam ak boroomam day rafet ku digg sa boroom rafet sa digg ak àdduna rafet noonu la yàlla tabaxee ruux ruux su baaxee rek nit baax moo tax ruux yàlla teel ko boppam xatta yonent bi xamu ci dara yasalunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi kon ruux boobu ñuy tabax su ruux baaxee mu nekk lu ba qad aflaha man zakkaha su ruux bonee jëmm yàqu wa qad xaaba man dassaha kon yow wayjur am ngeen responsabilité bu mag a mag ci doom bu jigéen bii ngeen war a tabax ruuxam ba mu nekk doom ju baax loolu nag xeex la bu metti métti responsabilité bu rëy rëy ndax yow yaay sa doom ni nga mel lay mel kon fexeel yow yaay balaa dooma am yow nga baax yow nga nekk yaay ju jaamu yàlla yaay joo xam ni day am yëg-yëg ci boroomam yaay joo xam ni day ñàkk sàgganee diineem yaay joo xam ne day bëgg boroomam bëgg islaamam yaay jooju mooy toppatoo doom di ko defar di ko yar ndax xam na ni yàlla joxu la objet booy taaroo mais daf la jox loo xam ne dala koy laaj yowm alqiyama yonente bi sallallahu alayhi wa nee na kenn ku nekk ci yéen wayjur ak ku dul wayjur lañ la yarloo danañ la ko laaj te li gën a doy waar danañ la laaj يو باي يو ياي وقفوهم إنهم مسؤولون يوم القيامة ويجر يقدر أن يتقوا يالا لاجل ننجن يريون سين دوم رواتنا دوم يجيلي ننجن لين يريون كون يو بابا نجكن تيل بخالة بروحم باخ بور خالة بروحم باخ موي يو بابا إلفون غام ديني بابا إلفون غام ديني دينة بوبو غي أم نغفخي ديكو جمبت تسروم وخون ناتي بند بلي باسي papa nu mel dom non lay mel dom su juddo fekk papa bëgg yàlla bëgg yonent bi du bokale wallahi dom non lay mel waye bu fekke papa jo xamne buy wat diw lay waté diw lay yaakar papa jo xamne dem na ba yaakar ne ngelaw li sax amna na ku ko yore ku dul yàlla mais dom joju mom bagge non lay def dom yu bari da ngay gis ni wat barke Umar Sall barke Modou paté parce que dañu fekk seen papa di waté paté ñu fogg ni paté moy yàlla ñu foog ni paate mooy lépp parce que baay ju bon bay waatee paate doomam noonu la mën a mel moo tax pour nga defar sa ruuxu doom mooy da ngay fexe yow ba nga jag ba pare yow yaay ak papa nga fexe xamal ko donte kii sa kilifa la ci diine da nga koo bëgg même boo defee fotoom ci kër gi del xamal sa doom ne kii kat mooy sëriñ diw sëriñ nag place su sëriñ la yore mais kenn du ko jox place yàlla waaye fu bàyyi toogee est diw diw moo defar affaire yi bu du woon ak diw kenn du nangam kenn du nangam mais doom ji loolu lay fekk wax dëgg yàlla bool du senn lu dul la ca nekk kon bu yaay ji amee diine baay ji am diine war nañoo mën a yaakaar ne doom ju jigéen ak ju war naa mën a baax moo tax jëlee nañ ci Anas ibnu Malik mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man aala jaariyatayni hatta tabluga jaa yowma alqiyamati ana wa huwa wa damma asaabiah rawaahu muslim nee na képp ku yàlla may nga toppatoo yar ñaari doom yu jigéen xool leen fay gi yàlla teg ci yar doom bu jigéen tegu ko ci bu góor ndax doom bu jigéen day génn ci sa loxo day dem ci yeneen loxo day amaat yeneen papa day amaat yeneen yaay kon doom jooju soo ko defaree ba mu baax bu demee yi beneen kër papa jam fay fekk day bay mel ni papa ji mu bàyyi këram su demee sëyi beneen kër yaay jam fay fekk day mel ni yaay ji mu bàyyi këram kon doom bu jigéen bu ñu yar defar ko bu ñëwee gorom bu jigéen yaay la koy def waaye du ko def morom te bëri na ci jigéen ñi tey ñu bari bi ñu sëyee dañoo jàpp ni seeni goro seeni wujj lañu da ngay dégg ñu di ko waxtaanee ah man de man de meer bi moom sama wujj la nangam daa nopp sama jëkkër xam nga wax joo xamante ne mooy ku ñàkk yar mooy waxee waxin boobu ku la jural jëkkër soo ko joxul place yaay mbon fa la tàmbalee yem fa kadalik fu ñu ko tabaxee tabax bu baax boobu da ngay yëg li ci nekk ci aw yiw ndax joom jooju day wëlbatiku nekk yaay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne képp ku sonnee yar ñaari doom yu jigéen yi la yàlla jox nga am ñaar nga am ay doom yu bari am ci ñaar yonent bi nee ne képp ku leen yar ba ñu màgg ba majeur ba mat a mayee ñu maye leen nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maag yow yowmal qiyaam nii la ñuy mel mbokk yi xool leen li yàlla teg ci yar doom bu jigéen ndeke sa doom yu jigéen boo leen yaree ba ñu baax ba ñu mat a sëy nga maye leen yonent bi nee na nii lañuy ñuy mel man ak yow àjjana bu gudd bi mooy yonent bi ci topp mooy man mooy duñu ñu ndax dafa nekk risque ak responsabilité ci yar doom bu jigéen soo ko yaree ba mu baax mat a bëgg am kersa yiw kooku liggéey bu mag a mag la kon jihaad la mi ngi mel ni nga demoon xare Uhud wala xare Badr ndax yar doom moo gën a metti xare kon mbokk yi tabax doom bu jigéen def ci moom njekk taxaw digganteem ak noonu yàlla yi ba doom ji nekk doom ju baax xale bu jigéen bi nekk xale bu yiw fexe ba taxaddiyaatu duniyaa mu mucc ci liy yàqu ci àdduna nga fexe ba sa doom mucc ci ah kooku la shakka borom day am àjjana xool leen waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ibtuliya min hadihi albanati bi cheyin fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar nee na ku yàlla nattoo doom bu jigéen xoolal ni mu ko yonte bi tuddee ma ni bu tuliya ku yàlla nattoo doom bu jigéen kon doom bu jigéen nattu la du bànneex xam nga tam mu nekk nattu da nga ko war a tabaxa tabaxa tabax ba mu baax kiñ la tabax ko ba mu baax te xam nga ni tabax nit moo gën a jafe kon nattu weesuwu ko kon say bët da koy teg ci moom di ko bàyyi xel di ko defar kon yonent bi nee na ku yàlla nattoo doom bu jigéen nga rafetal yar bi nga ko war a yar ba mu yaru nee na ñoom ñooy nekk pakk sa diggante ak safara boo naree dem safara doom bu jigéen jooju nga yar mu dem a dem ba majeur ba baax mooy taxaw sa diggante ak safara di la puus papa kon xam nga ne waxatuñu doom jooju day dem àjjana ki lay puusal safara mooy day ànd ak yow àjjana kon yow papa yow yaay am nga responsabilité du mag ci yar doom bu jigéen yar doom bu jigéen metti mooy fexey noon yi sàggan nañ ba suñuy noon ëpp ñu doole ci suñuy doom suñuy noon ëpp nañ ñu doole ci suñu àdduna suñuy noon ñu ngi ñuy yàqal suñuy doom borom baa ngi ñuy wax ni yéen jullit ñi wala tarkanu ila alladina zalamu فتمسكم النار والله يلا وخنا لب نينا يين جولت ني بولين جينغ جيم سي تون كاتي سو نين كو ديفا رك سفر لالين ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار بروم باغ وخ باتاي يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين يلا نينا اي يين ني جيم اي بابا ak yaay bis bu ngeen toppee yéefar yi bis bu ngeen toppee noonu yàlla yi dana leen delloo ginnaaw te da ngeen di perte malheureusement malheureusement trois quarts société bi yépp trois quarts musulman yépp tey xoolatuñu ni islam jàngalee yar mais léegi selon tubaab bi la ñuy jëlee mazahir yi ñuy gis yooyu rek la ñuy xool te mbokk yi noonu yàlla yi xam nañu li leen yëkkati xam nañu liy tabax islaam bi ñu xoolee ba xam pour déstabiliser déstabiliser jullit ñi yàqal leen seen ngëm yàqal leen seen yoon dañoo gaaw daw jubli ci kooku ñuy wax jigéen moo tax noonu yàlla yëpp ci jigéen lañu daw du ngeen seetlu xew-xew yu bari ci jigéen lañ koy yóbbu ay 8 mars feetu jigéen jël jigéen génne jigéen yàq jigéen tasaare jigéen lépp lu ñuy def ci jigéen la ñuy jaar moo tax benn boroom xam-xam doon wax ni kaasun wa gaaniya yafaalaani fi ummati muhammadiya maa laa yafaaluhu alfu madfa nee na bu ngeen bëggee yàq jullit ñi fexe ba ñuy naan sàngara di drogué fexe leen ba jigéen ñi génn ñu cay def lu leen neex nee na loolu moo ëpp doole génn ay char de combat di xeex ndax jamono biñ ca toll nekkul jamonoy xeex bu ngeen rayee jullit ñi dóor leen ñëpp ne yéen a ngi rey ay nit mais rey leen seen ngëm-ngëm ci seeni xol nan ngeen di rayee seen ngëm-ngëm ci seeni xol mooy guerre mondiale boobu moo gën a yomb mooy fexe leen ba seeni doom yu jigéen ngeen génn leen fexe leen ba seeni doom ñu gëm leen fexe leen ba lu seen doom bëgg ñu bëgg ko su ngeen ko defee rek mooy yàq ngeen leen mooy fexe ngeen ba lépp lu ngeen tëral ngeen réussir ko nan la noonu yàlla yi def ba xeex yar bi ci njëkk mooy dañoo génn kersa ci xale bu jigéen nadu xayaa kersa dañ koo génn ci xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi tàmbalee sept ans wala cinq ans la ñu commencé di génn kersa ci moom te loolu yëguñ ni tubaab bi ñëwul de dafa bàyyi tubaab bu ñuul bi mu jëmbatal ko loolu parce que moom tubaab bu ñuul bi benn jiw la ci jiwu tubaab bu xonq ba nekk bitim réew koloo bi nekkoon fii doon jël suñuy maam di leen jaay kolo boobu def fee bàyyi ay nen dem nen yi mu fi bàyyi nag dañoo toj nekk yu ñuul ñu nag ñoom ñu niroo ci jëmm waaye ci esprit ñu nekk ay tubaab ci jëmm ñu nekk ay nit yu ñuul kon nee na bu ngeen leen bëggee xeex génn leen kersa ci xale yu jigéen yi ak yar bi ma ne loolu ci kër gi lay tàmbalee ci yaay lay njëkkee yaay mooy tàmbale doomam bu jigéen su demee di ko jëndal yére du xool yére bi islam santaane teg na ko fële waaye yére bi tubaab bi defar di ko jaay moom lay jënd bañ nañ ko ba ci ñun kuy jënd yére il faut nga dem ci yenn bërëb yi xool ni tubaab yi programme yére noonu ngay jëlee depuis nag bi xale bi nekkee bébé ba bi muy commencé am cinq ans yan yére nga koy jëndal mooy yére yi tubaab bi sol commencé ngaa rey yére africain commencé ngaa rey yére diine mooy léegi yaa ngi jël yére yi tubaab bokk na ci ñaareel bi li ñuy sol yaraax na yaraaxul yoonu yaay nekku ci yoonu papa nekku ci comme yaay mooy dem jënd yére papaam dafay seetaan lu yaay jënd baax na te mbokk yi yére dañu koy xoolal doom bu jigéen bi mu tollee ci cinq ans jëm ci ay at yére boo koy solal xoolal bon façon yére la waaye nag laa xar doom bu nekkee ci kër fekk yaayam tudd zeynab wala fatima ruqayya wala khadija maymuna wala hafsa fekk yaay ji muy sol ay bodéeg piso ci ëtt bi di sol ay flottant ci ëtt bi di sol yére yu xat ci ëtt bi wax dëgg yàlla kooku doom ji bu ko yaayam solee lu mel noonu nag wàcc na wax dëgg yàlla mbuus lu ca nekk rek moo tee seen te yaay yu bëri malheureusement solu tubaab la sol amul ci benn kersa xooluñu seen diine xooluñu seen islam jàngale xam nga li islam daf ñu doon wax ni al mar'atu kulluha awra ma adaal wajhi wal kaffayn jigen léppam awra la ba mu def xar kanama ak ñaari loxom waye tay da ngay dugg ci biir kër fekk yaay doo xam ne au delà de 16 ans ba 35 ans pour ñoom lu ne war nañ ko sol am na col goo xam ni kenn terewula ko en tant que jigéen mais col yooyu coluk biir la coluk biir mais nekkul sol boo xamante ni ci ëtt bi ñëpp di dugg di ko gis soo gisee sa yaay mu mel ni benn Jeannette wala mu mel ni benn Bertrand wala mu mel ni benn jigéenu tubaab sol loo xamante ni cappi-cappi ni mu gis tubaab bi mel moom lay mel kon doomam bu jigéen laa budda noonu lay mel mooy commencé nañoo génne la ci xale du góor bi bu jigéen bi ñaareel bi tàmm di ko solal lu gàtt parce que yaay ji day sol lu gàtt sol zipp yu gàtt sol ay mini defatu la benn problème kon sa doom bu jigéen boo ko commencé jëndal jipp boo xam ne tollul ni sax ni ay baaraam parce que gis na yaayam di ko def kon yaay mi ngi tàmbalee jël doomam di jëmbat ci moom jikkoy tubaab parce que yaay bi jikkoy tubaab la yore mbokk yi bokk na ci di ko tàmm solal lu xat xale bu jigéen di ko solal lu xat yoo xamante ni jëmm ji léppay commencé génn te borom bi daf ñoo woxoon ni wala yubdiina zinatahunna illa ma bahara minha seen taar yéen jigéen ñi yàlla def ci yéen ba muy attiré góor bu leen ko génne lu dul la mënta ñàkk waaye beneen bi dañuy dem ba génn kersa ci ñoom seen awra génn dootul nekk gàcce day dem ba xale bu jigéen bi awram génn day jàpp ni du benn problème parce que dafay fekk yaayam day génne weenam yaayam bu ñawloo ca tailleur ba bu ñawee tay li ngay njëkk gis ci dënnam mooy weenam parce que yaayam gëmul ne muuraay yàllaa ko jàngale pourtant yaay ji Fatima la tudd Khadija maam Jaara la tudd wala Fawad wala mais xoola yaay ji bu demee tailleur bi di ko ñawal lu mu koy ñawal taille bi mu koy ñawal luy njëkk a fenn ween yi koy dagg ba ci digg bi bu ko defee yaay ji sol taille basse bu centré sol robe sol jupe bu centré ñuy gis weenam ñépp góori jàmbur yeeg jigéenu jàmbur yeeg même ginaar gi ci kër gi day gis ay weenam ñépp di ko gis mais doom bu jigéen boobu du xam danger bi nekk ci génne ween parce que yaay ji ko jur xamu ko yaay ji pour mu sol yére il faut ween yi génn xamul ni yàlla moo sant yaay mu muur yaramam teggi na d'abord santaane yàlla fi mu koy teggee nag ci Sénégal yu bëri mooy dañuy xas seen këru diine dañuy dégg ñu naan yi ngeen fi indi nii sëriñ diw indiwu ko sëriñ diw xamu ko mais yéen a ngi xas sëriñ diw yéen a koy xas يالا لومو اندي غني سيرن ديو اندي كو يالا نينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبن يا محمد وخال غور جوليت ني ني واخ سيني جابا واخ سيني دوم اك جيجيني جوليت ني نانيو مور سيني يارام nga ñëw na man man duma muuru ndax bokkuma ci yeen man talibé sëriñ diiw la et pourtant ñi ñuy wax ci sëriñ ñu bari bind nañ ci wax ci muuraay mais tey taalibe yi ñoo dindi loolu ba pare di layoo ni taalibe sëriñ diw la wallahi ñoo ko dindi beneen bi mooy mbokk yi su fekkee yaay day génne ween xam ne moom lu mu sol génne ween yaay mën naa sol sax dësu ci ëtt bi wala sax muy dem bitig ba di jëndi dara sol benn sous-vêtement wallahi da ngay gis jigéen mu sol sous-vêtement génn dem bitig ba jëndi du dara ci moom mu góor ñoo yem c'est-à-dire day dem ba jikkoy bëy lay yore mook bëy ñooy yem yaay yaay ju mel ni bëy papa joo xamante ni fiirul comme mbaam xuux mais do bu ñu amee doom do xam nga rab yëpp mbaam xuux a ci gën a ñàkk fiir mbaam xuux amul fiir moom moom lépp yoonam tey jikko jooju la tubaab bi def ci ñun góor goo xam ne bañoo ko xool sa weenu jabar bañoo ko xool sa jëmmu jabar balaa ngaa am jàmm sa jabar sol centre caket caketu ci mbedd bi nga kontaan madame quoi madame fekk yow yaa ngi nekk benn Alex bu dëkk Grenoble yaa ngi da ngaa nekk daaru cubb rek ci ñax yi mais Grenoble ngay ngay ngay vivre sa jabar mel noonu mais say doom bu ñu melee noonu wàcc nañ moo tax kersa la tubaab bi xam ba di ko dindi ginnaaw bu ñu koy dindi dañuy jaar ci école bi di ko fi dindi bi ñu ñëwee ci école pour bëgg koo dindi li ñu njëkk a xeex mooy <coughs> góor ak jigéen nañ leen jaxas ci biir classe yi mën nañ sax bokk ban amul problème te boo demee ci ñoom biir Europe école yi gën a am solo école excellence yi góor ak jigéen yi bokkuñu ko ba biir Europe xam nañ lu mel noonu mais biñ ñu nar a yàqal ñun dañoo indi mix jaxase góor ñi jigéen ñi su ko defee góor jigéen ñëpp jaxasoo mbokk yi alxayaau laa yaati illa bi xayr yonent bi ne na kersa yiw rek lay indi alxayaau shubatun min al iman nee na kersa jumla ci jumu ngëm yàlla xool leen yonent yàlla shuayb yar ay doomam yu jigéen ndax loolu la ko yàlla na too mu am ko doomam yu jigéen biñ ñëwee ci Shuayb fekk Moussa may leen ñu root bi ñu demee wakku seen papa papa yi bi mu ne kenn na dem wooyi Moussa xool leen ni ñu yàlla jàngale yoonu ndaw si ak Moussa ci ngay xam ni pour jigéen baax mënul ñàkk mu am kersa fa jaathu ihdaahuma tamshi ala istihyaa fa jaathu ihdaahuma تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليدرك أجر ما سقيت لنا الله الله يلا ني دوم شعيب بمي نيو دي ووي موسى موسى ميغي جاخلي توكي ويرو تي غاب دي امول لي ليك با اجتيني ربي لما انزلت الي من خير فقير يلا لوم اندي فيم نا بغنا ندا خيتنا خولا ndawsi bi muy ñew yalla neena bi ndawsi ñew kersa ibnu kathir nee na kersa gi mooy ndaw si muur na jëmmam ni ñu koy war a muuree wallaahi day dox sax du nangoo téen xool asamaan ay catu baaraamam lay xool tax jigéen bu ñu ko yaree noonu lay mel moo tax yonente bi nee na jigéen ñi jullit buy dox du dox ci diggu mbedd ci cati lay dox ñun balaa ñoo am jàmm nga ni fàng génne yaram génne dënn génne lépp yoon bi ndaw si ñëwee lan la wax Moussa wallahi ibnu kathir nee na xoolul Moussa Moussa xoolu ko xoolul Moussa Moussa xoolu ko mu fassir nu yu mag yëpp boo demee ñoom dañ lay wax kersa gi ndaw si doon doxee àgg nañ ci ba bi mu àggee moog Moussa dafay wax mais Moussa xoolu ko xoolul Moussa Moussa dafa ñëw rek wëlbatiku ne ne ko inna abi yaduuka li yajziyaka ajra ma saqaytana bu doon suñu doomi léegi ni ñu def tàpp ko akolaat ko fóon gauche fóon droite na ko noo peera lay woo subhanallah xoola yàlla yar bi mu ñu jàngal ci doomu ci doomu Shuayb ah kersa la jëfandikoo mbokk yi kersa mooy loo xam ni su ko jigéen amee booy takk jabar li ngay njëkk xool ci moom mooy kersa ñu bëri dañuy laaj far far bi zaatu diin ndax zaatu diin mooy koy gis muy julli di sëlmal di woor dañuy wax ni zaatu diin pour nga xam ko dëgg-dëgg ci kersa lay déparé jigéen bu amee kersa loo def ci moom mu jël mais bu amul kersa yàq ko de yomb parce que kersa mooy kubéeru bu jigéen ci bët yi ci nopp yi ci dégg bi ndax jigéen bu amee kersa day rus boroomam d'abord day rus yonente bi sallallahu alayhi wasallam day rus jëmmam day rus jëmmam góor mën cee am ak sega loolu mooy kersa moo tax booy takk jabar xoolal jigéen bi am kersa ñaareel bi ñu dindi ci jigéen ñi mooy liñ ci jëmbat mooy dara us sajaa fit dañ ko def ci xale yu jigéen ñi ci sa doom ci biir kër gi ngay tàmbalee ci moom fit lu ko neex sol lu mu bëgg a wax wax lu mu bëgg a def def parce que am na fit fit woowu nag li leen ko may mooy góor ak jigéen ñoo yem bi tubaab yi instauré ba jigéen ñi gëm ko ba am ñu ciy xeex waaw góor gënul jigéen jigéen gënul góor góor ak jigéen ñoo tolloo gis nga loolu ñu jël ba jël ay féministes fii jël ko def ko guerre arme de guerre di ko guerree fekk njuumte la parce que yàlla ne na walaysa zakaru kal unsa góor ak jigéen du ñu yem du ñu yem ci bind yemuñ ci lu baree bari waaye waxuñu yem ci ngëneel waaye yemuñu ci bind mbokk yi loolu day dem ba kersa gi bu dañee mooy yow papa yow la sa doom di njëkk a ñeme bu la sa doom ñemee mooy sa ndigal dootu ko faale sa santaane dootu ko faale parce que dafa fekk yaay ci biir kër gi boo xam ne faalewul sa ndigal faalewul sa santaane loolu mooy yóbbu doomu jigéen yi imagine leen tey plage yi ñan ñoo fay nekk boo génnee léegi nga toog plage bu bi wala nga dem mbuur koo fay fekk ay xale yu jigéen fan la ñu génnee ci paxu mbëtt yi déedéet ci kër yi dañoo bàyyi papa bàyyi yaay génn ñëw ci tefes yi ay xale yu am 14 ans 16 ans ñëw ci biir tefes yi summeeku ba set la ñuy def sol loo xamante ne wallaahi danga naan man man man man man Malaga laa nekk wala wala man maa ngi Barcelone wala nga xool tefesu Malaga tefesu Barcelone ni ni jigéen ñi mel góor ñi ni ñuy jaxasoo billahi ladi laa ilaha gayru suñuy tefes moo gën a bon demal Caaroy demal Mbuur demal Géejawaay toppal corniche bi nga xool ñëwal billahi boo amee ngëm doo dem tefes wallahi ladi la ilaha gayru xale yu jigéen ñi sol gu bon gi tubaab bi jaay li ñuy sol seen awra rek lay nëbb ak seen i ween li ci des parce que ay tubaab lañ xale yi góor yi noonu noonu la ñuy mel léegi xale yi jigéen yi fu ñu génnee te li gën a doy boo wootee ay turu jigéen lay wu ay turu jullit ci góor ñi ci jigéen ñi noonu lañuy ñuy mel dañuy mel ni ay tubaab parce que été ñëw na nu nu bëgg a mel dañu koy mel loolu fit woowu dafa àgg ci xale bu jigéen lu mu bëgg a ñaanu lu mu bëgg a laaj ko jigéen démb da doon am kersa ci ñaan ci laaj xale bu jigéen day ñëw yore lu papaam yorul magam yoru nga gis sa doom bu jigéen ñëw indi iPhone 11 iPhone 13 lay yore loo xamante ne billahi ladi laa ilaha gayru vingt cinq mu mat million sa doom bu jigéen dem tefes dem feneen ñëw indi ko ci kër gi am na droit bi yow am benn problème xam nga ne la ko jox iPhone boobu du jàmm du jàmm yow papa xam nga ko ndax yow yaa gën a xam sa poche pour keneen laal ko bandi bu mag nga xam nga ko kon sa doom bu yoree loolu war ngaa xam ni amee ameewu ko ci jàmm mais nag looy wax noonu adduna bi léegi bon njaboot gi njabootu kanaara lañ quoi nañ jiitu ñun ñu topp leen quoi du responsabilité jullit du waxee noonu njaboot gi du kanaara buñ doon kanaara ñu dugal leen ci ngunu yi waaye nit lañ nit dañu koy jubbanti dañu koy defar mais bis boo ko seetaanee ba mu mel ni kanaara mooy yàq nga te yowmal qiyaam yaay responsable bi yow papa ak yaay xool leen yonent yàlla Zakaria bi muy yar Maryam te ko ci bërëb boo xam ne jàkka la kenn duggul kenn génnul mais Zakaria saa bu xëyee ñëw da xool gont mu ñëw xool ko dem ba Maryam commencé màgg commencé am sept ans Zakaria buy ñëw fekk lekk ci néeg bi bu mu fi bàyyiwul parce que moo koy dugalal lekk moo koy dugalal naan kon su ñëwee fekk beneen lekk beneen naan war naa laaj lii lu ko fi indi noonu la way jur di mel su sa doom indee yére boo xamul yaay gaawal Fatima foo jëlee yére bi ku la ko jëndal foo jaar bis bu xamee loolu dootu ko def waaye yére bu mu indi non bii de moom macha allah bii de rey na góor ñi nga topp di ko wax sa doom en tant que yaay papa di xool doomam wallahi papa yu bari dañoo génnewu seen biir kër yi sa doom bu jigéen day solu génn papa ji du mooyu doo ko mën a xool parce que yaay seetaan loolu ci télé bi ñeme woo ko waa yow eh, yow soxna si li nga sol ni yow xanaa da ngaa dof ñeme woo ko parce que yaa koy seetaan yaa ko jëndoon ba muy nekk xale kon bu nekkee mag jënd ko mënoo ko koo tere yaa ko yàq kon ruuxam yaa ko yàq tabax jëmmam di nga tabax nag jëmm ju taaru ndax dana fexe ba jëmm ji taaru waaye ruux bi day dee bu ruux bi deewee benn matériel moo fi nekk bu amul benn solo moo tax borom kooko may jëliwaat ko wala mu ñëwal boppam gis nga Zakaria bi mu fekkee Mariam yore lu mu indiwul lan la ko laaj anna laki haada borom bi ne na kullama daxala alayha Zakaria al mihrab wajada indaha rizqa ala ya mariamu anna laki haada foo jëlee portable bi foo jëlee iPhone bi Mariam foo jëlee Samsung bi foo ko jëlee xoola mariam li mu ko tontu huwa ne na indillah lii day yàlla ci yàlla la jóge Zakaria xam na yàlla xam na boroomam xam na ni mariam kenn xalaatu koo ñeme ba di ko indil lu dul noonu moo gëm waaye yow papa bu sa doom indee loo xam ne du noonu toogal nga ko tey yaay yëpp ci kër yi ya talatu ñu yar ndax portable kër goo dugg rek portable yaay portable doom ku nekk mi ngi néer di sëfe amatuñ waxtaan yaay yi amatuñu temps pour yar pour jubbante parce que defaruwuñu ku defarul munul defar kon nag buñ toogee ci kër am na moment boo xam portable yëpp dañ ko war a fay papa bi wax ak ñoom yaay ji wax ak ñoom dindi leen dox leen bon comportement jikko bu rafet jëlee leen ci uqbatu bne amir radiallahu anhu mu ne yonente bi sal allahu sallam nee na man kaana lahu salaasu banaat fa sabara alayhinna wa atamahunna wa saqaahunna wa kasaahunna min jiddati kunna lahu huda hijaban min annaar yowma alqiyama nee nga muñ ci yar bi nga leen yar dundal leen woddu leen nandal leen nee na yowmal qiyaam ñooy nekk sa bunt ci bunt euh, pàkk ci pàkku safara yi mbokk yi yar doom bu jigéen moo gën a metti ndax tabax ruux wallahi yombul loolu nag mi ngi tàmbalee ci bi xale bi judd yow papa nga bëgg yàlla yow yaay nga bëgg yàlla te ngeen yëg ni yowmal qiyaam balaa ñoo dem àjjana yàlla dañuy laaj responsabilité boobu ku ko yëg ci ñun war ngaa taxaw ci sa doom yu jigéen fexeel ba sa doom yu jigéen nga tabax leen waaye nga tabax doom yu góor yi ñi ngeen fii tagg ñépp seen yaay dañoo sonnoon ci yar leen seen papa sonnoon ci yar leen ñu nekk ñu baax ñu nekk ñu ragal yàlla doom bu jigéen kenn du ko libéré ñetteel bi ñu libéré xale yu jigéen yi mooy am fit léegi xale yu jigéen yëpp théâtre la ñuy jàng ñëpp théâtre la ñuy jàng te théâtre yi ñu leen di joué ay film yu bon la yoo xam ne d'abord ñoom lañu ñu njëkk a yàq seen doog koo indi ci ñun biir léegi nag loolu ñuy nag tëmbal nañ ko ci biir kër yi kon yàlla rek moo ñu mën a dimbale kon mbokk boo amee doom bu jigéen góor góor lu ci loo mën allahuma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم من سائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم